yàlla dogal na ki nga xam ne ki mooy Touba kanam eh, nga xam ne moom fan yii yëpp moom itam mi ngi ci diggante boobu nga xam ne wax dëgg yàlla soo seetloo ndogal gi nu ci daal loolu lépp day bëgg rek bëgg bëgg lu baax rek moo ko yóbbee eh, dogal suñu boroom nag moo agsi ci diggante boobu waaye budul woon loolu itam fokk ñooñu alakuli yaan faw ñu génn faw ñu génn àdduna kon nan xam ne dogal suñu borom moo agsi foofu ndax gas boobu eh, kër Cheikh Rafa la ñu yóbbu woon ña nga la ñu yóbbu woon ca boori tokkoor ba ñoo tàmbalee gas loolu ba nga xam ne bi gas bi Eh, li ko tax a kii léegi gas bi dugal réglé ci way ci way moo yeex réglé ci way moo gaawut waaye bu du woon loolu kon daanaka benn bës mën nañ ci ba gas lu mat ñaari kilomètre mën nañ ko gas mën nañ ko gas te profondeur bi itam day xóot am na diggante yoo xam ne lu gàtt gàtt gàtt kat mat deux mètres cinquante am loo xam ne dana mat trois mètres suuf ndax bu fekkee aw tund la jub aw xur faw da koy gas ba nga xam ne bi ndox mi bu ñëwee dana mën a glisser gën a mën a wàcc loolu nag eh, ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla day eh, sëñ Abibu Mbakke yéeneem ci Touba mooy fenn bañ a taa lépp maase benn yoon.